salaamaaleykum yéen ñuy suivre plateforme Edge yëpp mu nekk ci podcast yi am Deezer Apple Music Anchor ak yeneen yi nga xam ne moom mooy euh, moom mooy ci plateforme yi ak ñi ñuy suivre ci réseaux sociaux yi ak sunu chaîne YouTube Edge TV di leen nuyu di leen ziar yéen a ngi waat encore ci seen émission For the Culture comme ni nga ko miinee mu doon émission boo xam ne dañuy waxtaan tout tout ce qui est en rapport avec euh, les cultures urbaines maa ngi fi ak samay habitué ah comme ni ñu ko miinee woon tey nag ñu am benn keneen koo xam ne doole doole ko qualité bi mataat na encore donc ñu bàyyi gars yi ñun yoo mais dañuy njëkkee ci ki nga xam ne comme tey mën nañu wax ni invité la entre guillemets donte ci biir la bokk ñu nuyu ko bu baax possible un mélomane bien connu dans le membre du du du groupe lu rab gaal seen ñu ngi koy bu baax a baax a baax aca Mr Ousmane Ela Ousmane Ela Sall alias possible <laughs> maa ngi siyaar maa ngi béggee képp nga xam ne yaa ngi suivre Pose Culture ci bépp plateforme bu mu mënti doon donc euh, di leen wax ni possible la possible bu Ludu Rap Gal seen bëgguñu possible bu Melo Music man ay na Aïcha les autres jarul ñuy présenté wu Tamsir la ak Malomar comme ni ngeen ko ñoo xam ne dañuy wax ci ci ci actualité hip hop bi ak lépp loo xam ne dafay dafay laal culture urbaine alors euh, tey ñu war a waxtaanee ak quelque euh, sorties yi nga xam ne am na ci actualité hip hop bi bi si njëkk mu dellu ci album la ñuy wax bu nga xam ne Hakill génnee na ko mi ngi ko génnee euh, yàggul euh, ci waaw album boo xam ne Hakill mi ngi ko génnee yàggul donc album boobu nag euh, Yigo ah génn na mi ngi ci plateforme yi ñu ngi wax ñëpp ñu ngi dem streamer ko sauf Deezer parce que loolu aussi c' est un problème je pas boo xam ne am na ci gis naa ko mu leen di clash ci Twitter. ñu wax ne mi ngi mi ngi remercier plateforme yëpp déjà il a plus d' million de stream boo xam ne album bi mhm. am na ko naka une semaine loolu déjà lu am solo la. Mhm. yigo mhm. ma njëkkee ci invité bi nag nga ñuy def honneur ki nga xam ne mooy door a ñëw possible naka nga yëgee album bi ak cursus Hakill ñëw ba kii fii déjà am na ay produits yu mu génne woon avant commençant par ci It's Your yi nga xam ne moo ci ba ci bi mujj idole avant muy ñëw ci ci yigo quoi alors noo ko noo ko gisee waaw euh, d'abord euh, comme euh, ni ma ko defee woon yaa yaa pas yaa moins d'une semaine maa ngi doon apprécier l'album la qualité qualité lyricale bi mais aussi qualité musicale bi maanaam euh, je dis que Yigo le gars il est revenu pour wane ni moom c'est un rappeur quoi nekkul si si yenn baay yi donc euh, c'est un projet que j'apprécie personnellement parce que il a il a bien rappé là-dessus def na si ay phase yu am solo il a kické te loolu maanaam euh, hip hop gaaseen foofu noonu la war a delluwaat quoi dafa war a delluwaat boo nee tu es un rappeur tu dois rapper mm-hmm. am na yenn détails yoo xamante ne ni franchement ça n'aide pas même jëli benn public boo xamante ni c'est déjà acquis à d'autres personnes donc li nga xam ne ñoom jot nañ ko am jot nañ ko capitaliser ci public bi hip hop bi dañ ko war a maintenir donc pour revenir un peu sur la carrière de de depuis It's Your Boy disons que ni projet bii nii mooy projet bi ma gën a neex si Hakill quoi donc sarax génn na fi troisième baram j'ai bien aimé xam nga j'ai bien aimé quelques quelques sound quoi ci troisième baram idole ça pas trop mais yigo bi dafa ñëw mu confirmer ni kat talent bi nga xam ne moom lañ doon gis ci moom à travers Isco Boy à travers aussi euh, Sarax et troisième baram dafa wane ni loolu mi ngi ci moom ba léegi parce que c'est toujours un bon rappeur c'est toujours un bon écrivain ni muy ni muy rappee ni muy ni muy ni muy tegoo ci beat bi ni muy bindee donc lépp mi ngi cool sauf que am naa quelques. critiques waaw dinañ si ñëw après ci critiques yi nga xam ne moom la ñuy def ci album mais wax dëgg yàlla bon gis nañ ni d' abord c' est durable. c'est un c' mm-hmm. c'est du rap kese ça suffit quoi pour ñu mën a wax ne album Hakill bi voilà quoi dóor na wala egg na fi mu bëgg a egg. waaw bon. <laughs> album bi comme lu gars yi di wax agréablement surpris quoi man sincèrement je suis man. Hakill du du artiste bu may bu may bu may bu may déglu lu bëri. waaw loolu moom je l'avoue quoi parce que bon déglu naa ko à ses débuts muy doon mu doon def ay affaire yu ma neex xam na benn fit bu mu defoon ak Gaston affaire yooyu. son ah, yooyu daf ma son yooyu daf ma neexoon. après entre temps nag ma gis ni bon le gars man yi muy def après neexuma woon quoi. après bon suivre naa. clan changé de style aussi ci entre temps aussi dugg ci afrobeat bi. voilà dugg ci afro yi waaw suivre naa clasham bi ak Karbala mhm. lenn laa xam ne man mun naa ko respecté kii quoi parce que tamit moom comme hip hop ensemble bi moom il est dans ça l'image déjà. xam nga moom loolu noonu da il tient à ça quoi. il tient beaucoup à ça très côté boobu moom il y tient beaucoup ses vidéos lépp côté boobu da ciy da ciy kii. album bi nag man bi ñu ne album Hakill sincèrement man dama doon ne ah album boobu mooy loolu. je me dans ma tête je me disais ah Hakill il va venir day chanter fii nekk di chantonner comme gars teg ay bitu sabar affaire yooyu mais sincèrement. album bi bu mu ñëwee dama ko dem déglu ma ne waaw ah lii de namoon nañ ko quoi mm-hmm. namoon nañ album boo xam ne day génn ñu gis gaayan bi di kikke mm-hmm. man dama déglu premier son deuxième son troisième son waa di kikke rek zap lu nag ci man ma déglu album te zappé wu ma son quoi man damay zappé rek day commencé yee rek ma zappé quoi mais nii nii déglu naa son bu nekk bu commencé dama naan ah bàyyi ma xool mm. mais damay déglu affaire di gën a ñëw moom may may déglu saa yi di di di teg donc c'était un album boo xam ne c'est un album boo xam ne man xaaruma ko woon foofu quoi waaw il il a waaw man loolu laa bu ma nee il a rek des fa du ma am lu ma ciy teg quoi. waaw attente bi aussi yàggoon na euh, Malo attente bi yàggoon na parce que tolloon nañ à une certaine période njëkkoon na ko annoncé mu demaat ba si biir après mu mu mu kiiwaat di def idole xam nga clash am ak Karbala ñëw fi wax dëgg yàlla am na lu mu lu mu contribuer ci loolu parce que man je me on l'a suivi benn interview bu ñu ko def bu mu doon def France il a dit que dañuy ñoom ci boppam sax ñi rab bareetul parce que dañu commencé di topp mouvance ba bàyyi li nga xam ne mooy repère yi nga xam ne moom lañu jógee loolu aussi daf ci am solo ban appréciation nga am ci ci bi. bon je dirais que mm-hmm. exemple da nga gis ni man lu ma doon def bon dafa xaw a low par rapport ak samay début il faut ma ma ma ma ma rise d'abord foog ma carboté quoi c'est ce qu'il a parce que ñun ñëpp comme ni ko waxee par rapport kiiw bi jàppoon nañu xakkil bii moom mooy loolu quoi mais mais dafa dafa ñëw en force te boo xool bu dul dara sax parce que man cover moo ma njëkk a parce que man comme man man je suis un de Nas dama gis cover bi sama xel dem ci Nigo Nigo il a fait une vidéo rien que pour wane cover dem ci Nigo quoi parce que am na benn album Nas boo xam ne ni Nas ginnaaw gi noonu la mel même chose la bu ñu koy laaj dafa ne lay fuwee yoo xam ne ni jamono esclavage yooyu la doon mandarga foofu noonu quoi mais la différence ni am na ay mandarga ay demee noonu mais le sourire qui va avec. Mm-hmm. loolu mooy créativité bi quoi. man loolu loolu moom mu njëkk a surprendre ci ci ci cover balaa ñuy dem ci contenu mm-hmm. mais soo dégluwee da ngay xam ne ah le gars il s'est ressaisi quoi mm-hmm. donc de je suis je suis kii de revenu de loin bàyyi ma ñëw teg loo xam ne ni tey kenn du toog di laam-laam de baax na wala baaxul quoi sauf ñoo xam ne ni seen noppi dañoo dañoo kii quoi dañoo bouché quoi mais gars yoo xam ne ni bon ce sont des des dañuy gis ne ah, le gars te waaye aussi am na ay feat yu yu nice am na feat bi mu def ak Ash man vraiment j'ai j'ai bien apprécié. y a un autre boo xam ne def na ko ak OMG Mr Cash One Lyrical mooy bi mu def vidéo vidéo bi aussi wax dëgg yàlla nice na quoi parce que man. Hakill euh, bokk na ci li ma gën a neex si moom mooy présence sam bi nga xam ne moom la am quoi c'est-à-dire lii tam si doon wax hip hop dafa hip hopé Hakill concert même bu fekkee da nga ñëw di seetaan Hakill su taxawee moom kese mooy taxaw si scène bi waa ji koy bageel taxaw ci biti mais xoolal doo taxaw bu muy sentir ni moom il est seul sur scène quoi. day day rap mais dégagement yi xam nga flow bi nga xam ni kii la gars voilà rappeur la quoi te loolu c'était depuis euh, Ndooma def sa rap bi nga xam ne moom la defoon essence bi muy nekk Reptyle quoi loolu aussi c'est un avantage maintenant yan critique lañ mën a joxe ci album parce que c'est vrai wax dëgg yàlla c'est ba tax ñu mën ko concurrencer peut-être ci pour sortie yi waaj a ñëw wala peut-être ñu mën a wax sax album de l'année waaw bon disons que c'est dafay dem mu concurrencer album yi yi fi jot a génn déjà ak yi waaj a ñëw ce qui est mooy la qualité yi yee quoi hmm. personnellement man loolu laa gis la qualité yi yee bon man benn critique bu ndaw laa am boo xam dama koy def c'est par rapport son champ quoi. waaw sérieusement xëy kii. a bàyyi way non way mënoo ko quoi sincèrement. la preuve déjà def nga featuring ak H de Best. Mhm. wan na la ni tu n'es pas un bon chanteur quoi. waaw boo dégloo featuring bi da ngay xëy H day wan xëy kii ni tu n'es pas un bon chanteur man je suis un bon chanteur. mais xëy kii mi ngi wan H que ni je meilleur rappeur que toi. te loolu moom da ngay da ngay dégg loolu nga xam ni voilà quoi c'est ça le truc. même si mën nga mën nga tey jii tuté de frein quelque part ngay chantonner et tout bon c'est acceptable quoi mais c'est pas ta vocation quoi way du sa yëf et j'ai bien apprécié le featuring avec Mr Cash et One Lyrical Hakill il a tout niqué mm-hmm. am nga One Lyrical moom day ñëw mu defal le bagage quoi loolu on s'attendait à ça Mr Cash il s'est très bien débrouillé si sans boobu mais Hakill Hakill wax na soxlaam quoi donc boo dégloo waa koñ ba il a parlé à beaucoup de a parlé à beaucoup de personnes a beneen larron boo xam ne mi ngi Grand Yoff gars duñ ko bàyyi xel muy G-side bi G-side bi boo xoolee sound yi Karbala doon doon def foofu la ko doon priser li si ëpp si jamonoy clash bi quoi les prises les mix les masters moom moo ko doon gérer g bi si boppam instant bii ñuy toll nii mi ngi waaj génne clash contre Hakill lay wax waa koñ ba il a annoncé sur ses réseaux sociaux quoi donc waa koñ ba nañ xam ni du Karbala kase il y a G-Side il y a aussi beneen gaan bi boo loon ko tamit bokkoon reptile quoi te koñ bala waaw waaw mooy king bi koñu Grand Yoff bi la <laughs> donc lépp ci biir Grand Yoff la en voilà j'apprécie l'album mm. j'apprécie l'album ci fond bi ci ci ci forme bi loolu je vais pas revenir là-dessus quoi mais bon côté way bi il faut soit nga améliorer ko wala boo nga wàññi. moom il l'a parce que am na benn club house mu doon suivre moom dafa wax ni moom jabaram ci boo xam sax daf koy interdire ne ko bàyyi rab bi bàyyi way bi quoi parce que tu sens pas bien franchement parler en tant qu'artiste moom aussi il doit il doit euh, il doit au moins mu xam ni voilà way bi am na fu mu toll du dox quoi au am na humilité wu xam loolu quoi donc juste da si gën a bàyyi Tamsir alors yan critique nga mën a apporter ci. non man rab la quoi. rab na bon. neex na la seulement dinaa rejoindre saa loolu sax du question de album bi mais gars yi nañ bàyyi dina ay dama war a wëy. maanaam parce que dañuy déglu yenn sax ay gars yi naan non artiste nga da nga war a complet amul fenn complet boobu amul. Hmm. ay damay complet moo tax damay wëy damay rab en fait. am na artistes yoo xam ne nekk nañ fi ay rappeur rap ba jógee fi te mosuñu woy te pourtant am nañ gloire quoi am nañ gloire def nañ li ñuy def donc c'est pas forcé nga woy quand tu t'essaies à quelque chose baaxul am ñoo xam ne jéem nañ ko dem nañ ko jàng dégg naa même Bouba benn kii mu naan moom sax jéem na dem jàngi piano mënul saa la sulee mu bàyyi fële non mhm. parce que des fois da gëm ni pour nga complet il faut nga mën lii ak lii ak lii ak lii mhm. te mun na bañ a demee noonu ko donc des fois nga woy mu yàq la lu bëri wala mu yàq son bi lu bëri xam nga am na ñu fi nekk ñu mën a woy invité leen ñu woyal la say say sound waaw loolu laa am lu may wax à part ça moom sincèrement awma <laughs> lu may critiquer kii bi. Malo waaw loolu day loolu de lu am solo la Malo. waaw bon daanaka xam nga xam nga xam nga liggéey bu rafetee. Hmm. bon ñëpp dañuy apprécier quoi. c'est c'est très normal ah mais mais juste comme moom dafa rap. Hmm. léegi problème mooy euh, soo soo indee rap da ngay indi lu ànd ak rap. Hmm. saa nee na qualité lyrique hmm. mais ba tey des na quoi y a des choses à améliorer. Hmm. parce que parfois da ngay dégg ay phrases yoo xam ne ni nice quoi formulation bi nice. Hmm. mais en en en kii en background la lay signifier naara. loolu da def ko da ci da nga ciy tombé ci yu bëri quoi yoo xam ne ni comme ban comme ban ay sama néew day yeewu. daaxa ji la benn boobu noonu wala da xaw ma lan da ngaa xorom je sais pas. jabet jabet dafay neex na ci formulation. waaw ah. la réalité ça veut rien dire. jabet ak waaw mais mm-hmm. mais moom loolu forum moom depuis toujours da koy def ko mm-hmm. day fortaatu xam nga. ba pare moom comme moom dafa def dafa kii dafa comme par rapport ak chanson bi ay cha woy yu muy def ak i demee noonu. bon mun nañ d'accord mu woy mm-hmm. parce que tamit artiste la même su fekkee sax da ngay ne artiste complet amul. mais da ngay tenter quoi. parce que nañ fii. gars yi ko def te réussir nañ. te réussir seen part sa neexul. Mhm. waaw gisoon nañ ko fi mu ne woon da ngay woy ni paa bu mandi. <laughs> xam sa baat flow flow bu mandikat bi. Mhm. waaw te moom baatam neexul. voilà voilà a mhm. parce que booy xool Fifty Cent ak Fat bu ñu paf. Fat am na line bu mu ko ne ko. you sing more pour wax ne rappeur da war a rap. waaw waroon nekk woy ak loolu la quoi parce que moom moo dese naan day rabaat. day dëgg na rab quoi. mais nice bon nice quoi. dans l'ensemble ah, waaw nañ ko jox trois mois <laughs> en tout cas franchement man j'ai apprécié bon j'ai apprécié juste que. rapport yi léegi seen problème mooy titres yi nga xam ne mu lay def seen album yi aussi va falloir ñoom ci boppam ñuy jéem di di olofal quoi man loolu j'apprécie j'ai bien apprécié li ko âge defee ak yooyu noonu c'est vrai bon nit ñi l'essentiel mooy ñu comprendre mais aussi comme que ñoom dañ naan euh, bu ñuy bind français bi nañ def lu ñu mën pour bañ a am wala bu ñuy bind anglais bi nañ def faute bañ a am aussi ce serait bien aussi bon mooy ñu bind olofal bi bind bi c'est vrai parce que olofal bañ a parce mal écrit yëg-yëg yëg-yëg bi yooyu yooyu dafa def Y e, G non man li ma a bi muy waxee olof olof Hakill la nga xam ne du olof. waaw du olof nag. waaw léegi day xam du olof parce que moom buy wax olof benn benn phrase bu mu a wax te du gàtt. da koy wiiri xam nga. mais mais mais Bouchra Bouchra ci hip hop bind foofu foofu parce que. Bouchra ci hip hop bind amul. amul faute quoi si si en fait man foofu xam tey par exemple da da ngay xool tey. Hmm. de culture. faute a ah, culture waaw am ñu faute tax ñu def. kat kat voilà benn see lañ waaw. amul faute en fait man ah, fi fi fi fi Bouchra di waxee damay damay comprendre parce que wolof ci boppam maanaam langue bi ci boppam moom dafa bind des titres am yoo xamante ni wolof la am yoo xam ne français la et tout chaud il a écrit mm-hmm. chaud noonu la ñuy bindee chaud en français il n'a pas fait de faute léegi nag bind amul faute ça dépend lan lan ngay bind. bu fekkee tu es tu as destiné ça à grand public. Hmm. da def effort boobu noonu quoi. boo bëggee bind yëg-yëg xamoo nu ñu koy bindee en wolof. Hmm. tu t'approches d'un Malick Sy wala d'un Daouda Gueye de Pikine ñooñu nga xamante ne ci wolof bi saa wolof bi dañ ciy nekk di si di si def ay jéego yu yu am solo. oo hmm. moins xam nga ñu ñu góorgóorlu si loolu comme ni ko H2S defee quoi. non surtout sax surtout mooy problème bi c'est-à-dire même wala leneen boo ko bindee nga changer écriture bi. am na beneen boo ci xalaat. boo tax nga changer ko. mais yow olof bi ngay bind te yow bi nga koy bind c'est-à-dire parce que comme ni ngay bindee SMS la affaire yooyu noonu bon c'est pas nekkul lu protocole parce que da rap moom déjà voilà c'est anticonformisme anticonformisme mais quand même voilà ce sera ce serait bien euh, pousser pousser pousser au moins les ñu ñu a kii ci peut-être mu national quoi dina ci am solo dina ci am solo bon en tout cas ce euh, yoo xam ne appréciation diverse la lu mu mën a joxe man pour wane cover bi wane ne album bi c'est le résultat li nga xam ne moom la subir ci ay apréciation yu négative ak yooyu noonu na nga fexe nag ba bii bu weesoo apréciation yi bu ñëwee mu mu dalee mu créé waat leneen loo xam ne dina am njëriñ aussi communication bi jaar yoon nga def sa concert ah même bu fekkee du force nga fexe jox melomaan yi ñoom tamit li nga xam ne moom la ñu moom li nga xam ne ñooy suivre aussi mën nañu jënd album bi euh, ci plate mën nañ dem streamer ko bu ñu kiiwul aussi am na version clé boo xam ne 10 000 francs lay jar ak CD bi 5 000 francs donc loolu la ñu mënoon a wax ci albumu Hakill bi nga xam ne moom moo génn Yigo euh, mi ngi ci plateforme bi yëpp ku ko soxla l'affaire xuluyo absolu l'absolu moom la ñuy wax parce que affaire bu xaw a voilà quoi c'est c'est c'est un peu inédit que da nga nekk ci réew moo xam ne mhm. euh, c'est du laalul sax peut-être aspect musical bi artistique bi mi ngi si mais li mu gën a laal aspect social la. Mhm. confrérie et tout ci période boo xam ne voilà les non les nerfs sont un peu tendus. def benn son bu tudd Tarixa. Mhm. ça fait plus d'un son bi génn eggul woon sax cinquante mille vues ah. ñu xëy benn jour ñu daan ne Coolio l'absolu waa dig woo nañ ko parce que son bi def ci xas kilifa diine yi alors que son bi trois parties la. Mhm. première partie bi mooy bi mu taxawee ni man murit laa lii laa damay xas tiijaan yi. Mhm. man tijaan laa damay xas murit yi mu daay def benn synthèse wax ni ñu ñëpp benn lañ et cetera et cetera. Mhm. d'abord. naka la ñuy naka la comment ça commencé arrivé quoi un oeuvre une oeuvre artistique. Mhm. jógee ci état boobu jëm ci dénigrement ba mu egg ci euh, egg ci au devant au devant de la justice. c'est pas la première fois aussi peut-être euh, ñu ñu ñuy laal artiste ci côté boobu noonu on se rappelle de kër gi ak seeni son yi ñuy def ci nguur gi ak ñeneen ñu dul ñoom. Mhm. ban appréciation nga ci am Tamsir. Euh, bon <laughs> dama jàpp ni gars ils ont fait l'affaire de Julio sincèrement. Mhm. parce que tax na ñu bëri ñu xamutoon Julio dem xam ko. bon. tax na ñu bëri ñu. la vidéo est à de cent mille. waaw te tey génnee na beneen na beneen sound tey bon bon bon. loolu moom dama ko ci dama ko ci dama ko ciy féliciter parce que tamit artiste il faut saisir les opportunités. et il est en train de saisir l'opportunité quoi. même communication bu mu ci def sax tamit il a saisi l'opportunité bon man dama jàpp ni ay caaxaan la quoi mm. parce que son boo xam ne def na def na plus plus plus d'un an mm. déjà. dama jàpp ni sax xam na lu ne ci ginnaaw y a des non-dits quoi par rapport ak cette histoire la parce que comme quoi Sénégal fii nit yàgg na fi wax ay affaires yoo xam ne donte xul yoo waxul loolu pour muy clair quoi il naa diingatul kenn quoi mais nit yàgg na fi diingat te dig du ci dugg dañuy seetaan population bi entre ñoom ñu koy régler fii nit musu fi wax benn affaire bon pas à ma connaissance wax benn affaire boo xam ne da ngay gis sax ci net bi kenn wax loo xam ne peut-être dérangé na camp bi ñeneen ñi nekk di ko tontu ñi nekk di ko tontu te musuñ gis sax benn dig dugg ci wala affaire yooyu noonu am na ay prêcheurs yu toog en direct télé xas sëriñu jàpp voilà voilà te musuñ gis lu mel nii quoi donc un son boo xam ne son bi bu mu génnee man de sincèrement j'ai jamais son bi génn na mais moment bu muy génn noonu musuma gis mu indi problème quoi entre ñun mélomanes yi te Julio Lapso li leer na ma ci staffam xam naa ay nit yoo xam ne bokkuñ sax tariixa ci biir staffam donc lii bu demee ba un an après mu indi wax soi-disant benn nit moo dagg benn verse verse yooyu noonu dugal ko TikTok loolu suscité ay wax quand loolu de moo tax man pour ma prononcer aussi sax même binduma ci sax parce que dama naan lii am na lu nekk ci ginnaaw y a des yoo xam ne c'est pas clair mm-hmm. c'est pas clair quoi lan la gars yi lan la ñu lan lan lan lañ bëgg a qu'est-ce exactement à Julio l'absolu lan la lan la ñuy chercher quoi parce que Sénégal moom Julio bu waxoon loo xam ne nii laal na tarixa yi non Julio du fanaan gàlleem <coughs> soo boobu du def semaine Julio gars yi indil ko problème donc moo tax man après je sais pas quoi man xaw ma lan laa ciy wax exactement je sais pas parce que dama naan réew mi dafa bëri caaxaan en quelque sorte dama bëgg a rester ci cadre artiste bi. waaw te su ma continuer damay dugg ci ay yeneen affaire yoo xam ne damay laal ay ay affaire yoo xam ne système bi affaire yooyu noonu quoi. te man bëgguma man moom je préfère rester ci cadre artistique bi quoi. œuvre artistique bi sax. wax dëgg yàlla c'était pas une œuvre satirique euh, bon satirique la mais pas à cent pour cent. parce que am na aspect éducation boo xam ne mm. am na ci pour jàngal nit ñi mm. ki nga xam ne moom ça en fait li mu def effet inverse la la am par rapport sincèrement effet inverse la am léegi ban appréciation nga ci am beneen bi aussi li gën a yéeme mooy c'est le procureur même qui s'est autosaisi quoi. période boo xam ne y avait des bu beaucoup plus urgents quoi. vraiment on ne comprendra jamais quoi li mm. waral dëggantaan quoi procureur di autosaisir ci mbir mi nii. juste dafa mel ni sénégalais yu bëri rek ah dégg teel a ngi damm na en réalité lii dafa yàgg dafa yàgg nekk problème bu rappeurs yi ah. Mm. sincèrement c' est pas la personne de Julio lay njëkk a dal quoi. Mm. saa su nekk rappeur dina def sound jublu si benn mbir ñu interprété ko neneen. Mm-hmm. rappeur yaa gën a dérangé quoi. mais fii y' avait a y' a matière quoi y' avait pas lieu di àgg ba fii nii. son bi c' est en trois parties. Mm-hmm. première partie bi. il entre dans la peau d'un mouride bu nga xam ne fanatique la day xas tijaan mhm. deuxième partie bi il entre dans la peau d'un tijaan boo xam ne fanatique buy xas mouridisme mhm. troisième partie mu wan leen ne nag seen xuloo yeeg seen ŋaa yooyu nii waru fee am parce mhm. que du Serigne Touba du Hadj Malick nekkul ñoom ñoo doon defante loolu donc c'est pas des soi-disant yoo xam ne ñooy xëy di def loolu parce que kilifa yi seen biir ñoom defuñ loolu la moo tax ñi tuddee seen boobu talibé di def loolu mais xul yoo waxu fi waxu fi dara loo xamante ni lu bees la loo xam ne mosuñu ko dégg quoi. le message a été très bien structuré ni mu ko waxee noonu la fa demee quoi léegi ñu woo ko on n'a pas compris mais bon alhamdulilah. et sérieusement maanaam élan de solidarité bi nga xamante ni gain bi yëpp def nañ ko non man ça m'a bien plu parce que ñëpp daanaka mu clash la mu ñàkk la mos a clash mos nga man publier nga quoi nga ne kat préjugé la absolu mm-hmm. xam nga même ñi nga xamante ni lu mel ni ONG Jamra comprendre nga façon yooyu on fait pas la publicité mais c' est ça quoi ñoom ñëpp wane nañ ni kat bon y' a y' a pas lieu ñuy woo artiste bi pour lii mu def nii mm-hmm. mais comme lii seetam di wax sànq ça à fait la affaire de Julio Euh, bon entre chose malheureusement loolu la ñuy wax quoi donc ça ça l'a arrangé léegi nag c'est à lui xam nga de de profiter xam nga ci euh, nattu bi daloon ko mu def ko ngëneel quoi comme ni ko gas te natt du noon ngëneel la <laughs> ngëneel la te il a sorti un son identité xam ne identité bi muy début son bi rek mi ngi naan nattu du noon ngëneel la c'est comme pour rappeler que ni voilà li ma jot a dal nii métti woon na sur le moment bi ma koy dund mais bi ma si génnee je suis sorti beaucoup plus fort quoi xam nga te baat bu njëkk bi muy wax mooy alhamdulilah sant ñëpp yàlla si boppam sant ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ si mais mu rappeler que ni moom son identité c'est de faire du rap conscient rap conscient laay def et j'assume te nekkul ay menaces de mort ñooy tax ma ma dellu ginnaaw ça respect pour lui parce que boo fekkee ni lu jug xoqatal la rek maanaam da ngay woyof ni xob lu ñëw da lay yóbbaale comme ni ko Keyti doon waxee donc il faut nga dëgër te culture hip hop the culture loolu lay def ci yow quoi. waaye ce qui ce qui ne me tue pas me rend plus fort. carrément ba tubaab wax am na loo xam ne peut-être bu la dalee bu fekkee yàqalu la egg fenn fii mën nga ci profiter ba gañew ci artistiquement Coolio lan euh, yan avantage ak yan porte la ko mbir yi mën a kiiwal beneen bi mooy niveau hip hop gaaseen ce que une réputation parfois ñu rey. kii yu bari. bon avantage bi xam ñëpp xam nañ ko ah ça ça Elzo si bi tweeté na lu mel noonu mm. nee na espère que Lion dina ci kii bi quoi ci tournée bi quoi waaw loolu peut-être mooy avantage bi plus de kii plus de plus de followers. plus de visibilité ne dinañ ñëw lijjante la mooy loolu te tamit son boobu noonu gars yi dinañ pour de cent mille voilà mais mais man d' expression mm-hmm. te yow porteur de voix la tu dois donner le bon exemple mm. c' est bien mm. soo respecté dara ba nga jox cër wala nga gëm mm. sa yaram sa lam war na lot ci wax yenn mm-hmm. xam nga tey man su ñi ñaari bi ñuy saagante ndey su may nettali war naa bañ war naa ñëw mën war warumaa taxaw naan diw da nga ne. nii la ko sànq genre fa tamit noonu. sama laaj war naa parce que man du mu ko def donc sama laaj même su may nettali affaire bi sax sama laaj mi war naa lor ci wax loolu quoi. Mm. donc xasante yooyu mu doon joué certes dëgg la trois parties la la dernière partie mooy loolu. mais les deux premières parties wax wax yooyu noonu mënoon na ñàkk quoi mënoon na ko wax neneen. Mm-hmm. mooy quand tu es ci tu veux véhiculer un message il faut intelligence mooy. nga fexe ba nga wax lu ngay te du gis rek. mais est-ce que nekkoon pour susciter curiosité wu ki nga xam ne mooy mooy seetaan parce que ba muy commencé. wax na ni wax na ni lii. œuvre satirique la boo xam ne. balaa ngay jugé demal ba ci vidéo bi. xam nga tey ñu bëri duñu ñu bëri jaaxle benn son son hip boo koy déglu tey man son bi nu mu duggee rek mun naa ñëw tam son war naa neex. Mm-hmm. waa ji nu mu entamé first round bi naa ne son bi war naa ne mhm. am na ñoo xam ne dañu dem ba ci biir kër son bi parce que bi peut être kiiwul mhm. am na ci loo xam ne da leen kii rek ñi kër waaw laal tey xam nga tey son son noonu mhm. soo commencé rek affaire bi am ay yooyu noonu yow boo toogul di xaar fin bi sax loolu ngay jàpp waa ju TikTok nu mu réagiré ak ñeneen ñoo ñu gis loolu nu ñu réagiré yow noonu ngay réagiré amaana sa son boobu noonu boobu tarixa boobu nag le fait que amuloon yenn buzz yi donte instructive la d'après moom mu quoi hmm. la moo tax amuloon buzz xëy na ñu bëri noonu noonu demee da ñëw commencé son ñu ah idée day nekk di wax ak bàyyi rek off hmm. juste pour wax leen ne rek un artiste quand tu veux véhiculer message pour ma quoi hmm. da nga war a da nga ko war a def avec intelligence xam ne di nga wax lu ngay wax te du te du frustré kenn benn exemple bu euh, kii mu tuddati euh, Euh, damay fàtte son bi son bip son la foog naa dëkk bi mooy frère ennemi am na lu ñuy waxante foofu noonu. ay wax yoo xam ne nii dafa dafa dafa dafa sensible. Uh-huh. mais dafa subliminal parce que lan waxuñu carrément nit ñi lu ñu bëgg a dégg. ok dégg du ma comprendre parce que affaire de divorce. affaire affaire de kii. njaaloo affaire de. mu ngi koy cocu lañ fa. waaw et cetera mais fin son bi saa yi dafa ñëw ne ñoo ngi jéglu bépp kii et cetera bi comment loolu tëjee quoi. bépp borom ko bu gis boppam et cetera demee noonu. te pourtant le message est passé kii te ñëpp comprendre nañ quoi man loolu laa am lu ma ci yor. waaw juste pour. artiste moom ak léegi loolu mooy indi loolu mooy indi réputation réputation wu euh, les rappeurs. parce que fii artistes yi peut-être les ci combat yu bëri ñoom ñooy nekk si kanam bu ñu waxante dëgg bi Sénégal surtout combat noble yi nga xam ne dafay laal dëkk bi mais à chaque fois étiquette yi nga xam ne ay dem justice ak yu ëpp bon même bu fekkee ñee pourtant dañuy def yoo xam ne ça touche des affaires de mœurs kenn du wax mais pour les artistes taf on parle de dig on parle de prison ah du tadu tadu tadu dafay yomb quoi est-ce que réellement tamit nekkul commencé di di yàq di yàqal artistes yi. waaw pas yàqal pas yàqal parce que euh, boo xoolee pourcentage bu faible la. pour pourcentage moom bu faible la. rek waaw benn ngay dégg bala nga kaa dégg ak ay at. Hmm. et mais terewul euh, depuis toujours xam nga. rab nit lu ko gars yi jàppee la. xam nga lu nga njëkk a jàppee mbir. loolu ngay da ngay jàpp loolu wéy même bu amee changement yooyu doo ko gis parce que yow lu nga njëkk a gis loolu nga loolu noonu nga jàpp da ngay yaakaar ni loolu noonu rek moom moo mun a ne. Mhm. dañ jàpp ni rappeurs ay bandi lañ. ok loolu nangam lañ et cetera. bañ dafa daan toog naan moom lenn moo moo koy métti loolu da koy déplorer tout temps mooy le fait que ñuy naan gars yi ay booy la. booy rap ay ay ay ay personnes loolu même ñun dañ koy wax ah. ay ay ay kii lañ quoi. <laughs> booy rap ay yu bees yi yu bees yi ay de famille la <laughs> ñuy wax booy yëpp am nañ soxla. léegi réputation boobu gars yi am ci euh, ci ci ci rappeurs yi. waaw loolu bu amee lu ndaw lu rappeur def rek gars def ko coow parce que tey un donneur de leçon warul warul seetaan wala sàggan mu def loo xam ne day mooy moom lu muy digle. waaw. kon rappeurs dañ leen considéré comme des donneurs de leçon de leçon kon ku ci teg benn affaire bu ndaw rek dañ na ah xool moo dàq yee defi te moo dàq def toj toj. mën nañ ci joxe mooy mooy waral tool yi quoi. di am rapport ci mouvement beeg. waaw mën nañ si joxe exemple yaa kër gi sax joué nañ ko ci waaye nañ ko ci gis-gis gis-gis yu waroo xam nga yéen rappeurs yi yéen a fi dàq wax dëgg mais yaa yaa yaa dàq Bouchra bon man man damay rebondir tuuti ci lu Malo wax quoi par rapport ak euh, bon pas jugement li mu wax ci ci ci Julio quoi ne mhm. artiste da war a def attention mais ci cas bii nii mhm. je pense que opinion bi amul problème ak Julio waaw mais paradoxalement ce qui sont censés être au-delà des limites humaines maanaam ñi nga xam ne. ñoom ñoo wàcc quoi ba ba mais xul yow bu son bi génnee yow wax na ko def na un an. donc opinion bi amuñu problème ak son bi donc son bi man gëw ma ni son bi frustré na nit ñi mais est-ce que du gars yi ñoo bëgg a jaxase xul ak nit ñi. moo tax ma ne y a des choses qu'on dit donc quand quand le procureur s'autosaisit ci benn affaire bu mel noonu. Mhm. il n'est pas bête quand même. non xanaa déglu mënul mënul dégg benn partie rek ne nit ki kaay. man de gis naa koo xam ne moom déglu na son bi ba mu jeex. Ah. mais il a écrit un texte ne son bi waru ko woon a def. waaw waaw il a écrit tout waaw loolu dëgg la loolu dëgg la loolu dëgg la mais pas le procureur quand même. waaw procureur moo doon moo waroon sax tey jii nit ñi bu ñuy attaqué xul yow mu ñëw ne ne eh déglu leen lii. non mais ça genre xam nga procureur bi tamit il de. de l'autre Sénégal quoi gis nga maanaam man ah, <laughs> personnellement personnellement man je, je vois pas de problème mm-hmm. à ce que l'artiste écrive comme nu ko neexee mm-hmm. gis nga artiste bi quoi mm-hmm. maanaam il est dans il est dans son monde gars yi bu ñu loolu muy muy écrivain bi muy peintre bi muy comme si mën doon du moment où tu es un artiste am na beneen beneen beneen sens bi nga xam ne mi ngi développé wu ci yow quoi bokkatoo limite ci sens commun bi tu vois donc am na beneen gis-gis am na beneen interprétation bi ngay am ci réalité bi boo xam xamante ni yow rek ni nga ko bëgg a exprimer noonu nga ko exprimer moo tax ñu war la bàyyeeg liberté boobu noonu te gis nga lii lii action bii nii dal Julio lii dafa xeewi ko on est au vingt et unième siècle ñuy woo benn artiste parce que dafa def son ñu koy woo dikk di ko déglu mais Wouso nan la lan lan moo waral lool ci Sénégal bi ñu nekk. Mhm. soit waa kër gi raf nañ fi lu gën a yéeme loolu. soit waa Rapajo def nañ fi cent commentaires. Mhm. waaw tudd nañ fi Makhtar la Kaolack def nañ fi cent onze commentaires. cent onze commentaires waa BMG 44 attaqué nañ benn sëriñ. waaw loolu. il y a pas longtemps. ay taalibe sëriñ bi dem di songu gars yi di leen wër ci taan bi bëggoon leen. Eh fexe mais gars yooyu ñoo ngi dund léegi. kër gi dèjà encyclopédie donc si lan nga may woo. si lan may woo am na sëriñ bu particulier bi ñu doon waxal waaw xam nañ classe bi kan la si jublu. Hmm. tu vois donc c'est l'artiste moo mën loolu quoi gis nga dëgg yi nga xamante ni day dugg si nopp nit ñi. Hmm. soit rappeurs yi ñoo ko fi wax. c'est la réalité gis nga dëgg yi dugg si nopp nit ñi c'est gémmiñu rappeurs yi lay génnee quoi hmm. donc. il n'est plus l'heure xam nga ñuy jéem a tëj gémmiñu gars yi loolu dafa xeew yi nañu bàyyi gars yi ñu am seen liberté nañu bàyyi artistes yi aussi ñoom ñu wane li nga xam ne noonu lañ seen œuvre artistique te ñu apprécier artistes yi eh, mais il faut mu encadrement tamit waaw waaw liberté liberté non liberté ah, mais mais c'est un débat parce que large sax même côté cinématographique aussi ñëwoon na aussi c'est plus large peut dinañ am temps boo xam dinañ ci wax mais en tout cas man moom li may wax mooy les artistes rappeurs euh, parfois euh, seen seen kàddu dafay am euh, benn wuute par rapport ak kàddu yi nga xam ne moom la ñuy wax ci société bi lu baree bari léegi sax tane na ah. léegi nag loolu mooy jur incompréhension yi mhm. de telle sorte que ñoom bu ñu déggee rappeur tudd niw dafay fen ñu daan ne i eh, taf gémmin alors que le rappeur il est censé dire les choses comme ils sont comme elles sont mhm. te du ci changer dara quoi te loolu tamit wax dëgg yàlla lu ñu war a mën a bàyyi public bi ñu apprécier loolu la déem a découvrir seen univers mhm. ñaari univers xaw nañu wuute mais quand même ku nekk bu jéemee def l'effort de comprendre l'autre rek dina beneen aspect ci actualité clash la bon en tout cas benn son la boo xam ne laal na euh, El Jazz ah <laughs> mafia bi <laughs> mooy ñële mooy son bi nga xam ne Julio encore moom moo ko def naara bi ak élément euh, xel ñaar. Mm. boo xam ne xam nga laal nañ ci gars yi quoi élément fayu fayu na ci taal bi ah naara bi ñëw raafal gars yi. Mm-hmm. taal bi mm-hmm. taal bi waaw mooy ki nekk Thiès te mu defoon taal bi aussi defoon na beneen son xam naa moom dafa laal waa mm-hmm. Akatsuki et cetera ah. son taal bi sax moom moo jiitu son boobu noonu lees waxul lees waxul voilà léegi euh, ban appréciation nga am ci son boobu ñoom ñett bokk koo pare classe bu ñu bu ñu featuring tamit man xam nga dafa ma def kaa quoi mais cool xam nga sound bi mi ngi tudd rap wolof moo raw wolof moo raw genre dafa génn une semaine après affaire yu xel ñëw quoi tu vois bon pour boo nekkee euh, un pessimiste nga naan non est-ce que ko mu laal mais dans ce dans ce pas quoi Julio dafa def un mu laal El Jazz laal One Lyrical parce que ñoom ñaar seen seen nañ andeséda ma man lii ça c'est mon domaine waaw parce que Seytaane TV la les clash Seytaane TV la man génn naa Seytaane TV tous les Seytaane ah, xam nga donc Julio bu defee rap wolof moo raw si contexte bi quoi. Mm. xam nga man loolu laa gëm quand tu es un gis nga loo war a nekk naa da ngay publier Facebook publier Instagram naan da ngay kaas. ci lu nañ gis nañ fi ah, ñaar ñu ko def ah. son. non moo ko ak One Lyrical. waaw da gis nga Julio ak One Lyrical jamono jooju bi ñuy nekk si Instagram di tapasante di téesante man dama ne Julio soo da nga xam lu la mel ci One defal son. waaw loolu xam nga donc et après defoon defoon na ay son ay one shot di clash su waay quoi hmm. su waay tamit à travers des sons pic na fi Julio mais xam nga loolu du siiw parce que xëy na Julio siiwul donc Kim pic du siiw hmm. noonu la fa demee léegi rab wolof moo raw ñoom ñetti ñëpp dañuy ñëw Julio ñu mu laal bëri na quoi mais ñëpp ñi nga xam ne dañuy ñëw pour nee na dénaturer rab bi nii hmm. di def leneen loo xamante ni bokk ci moom loolu la parce que rab conscient mooy mooy philosophie voilà el jazz waa Didi Record Didi wala Chichi xaw ma ndax gars yi dinañ seetaan manga quoi mais affaire boobu loolu dis la disrespect la. te man nee na nee na suwaay nee na Paul Diouf yow nga dëkk mais jël nga yoonu bon on censure quoi. Mhm. booy boobu moom eh, du ma ko wax booy Paul Diouf daanaka suñu. Paul Diouf waay tontul Paul Diouf en fait il a il a du talent. mais man Paul Diouf euh, Banks. Jera Banks daf fi ay jamono mu ne waaw. nga axa blindé mi ngi nii di def mbalax gars yi waxuñ ko dara mu attaqué nit dof parce que dañuy neng nengal nga axa blindé léegi yow nag waaw yow waxuma la ay waxuma la mbalax ah mbalax sax nice parce mbalax bi góore na ma mm-hmm. mbalax bi góore na de mm-hmm. am na suñu góore mais yow voilà sa bopp waaw couleur yi kay gaayam keroog xafis keroog xafis laal na ko fi laal yu méttee métti métti ah, jël na ngi may suñu jaam nee na moo tey waaw léegi ñun tamit ñoo tey di la wax ah, donc jàppee ko noonu donc bu nice bon couple bi moo si gën technique à mon avis. waaw i yi la si def. si la changement de flow yi de style mu laal si mu laal si taal bi quoi. na ko boo bu fekkee ni da ngaa xew rek jàppal ni moom xam nga génn moo am. Bakary <laughs> mu ne ko Bakary Bakary demal ñibbi booy ils sont pleins d'inspiration quoi. waay Naara bi il s'est bien défendu. si son bi. j'ai on a retrouvé le Naara qu'on aimait. bon j'en profite pour lui dire que son préalbum Misaalu Kiraama bi. bon niruwul sax kiraama niruwul sax. Ah, non dañu koy wax franchement man moom man moom j'ai j'ai pas été. ouais parce que mosuñu am wax si. parce que moom dafa dem ba dafa mel ni dafa gedd. waaw message kiraama bi comme si maanaam moom def na benn affaire mais. def na ko ne mais loolu dara da ngay ñëw kiraama bi nga def kiraama. parce que on est resté sur mën na ko kiraama ko aussi déjà moom ay freestyle noonu dafa gis gis nañ ko son bi. Mhm. Tamsir ko ak noo ko yi xam nga xoosante yi xam nga mi ngi am solo waa ngay gis ni donte am na ñoo xam ne euh, peut-être bien que seen dañ ko kal ci ay publication rek on peut donner l'exemple de El Diaz ak ñeneen ñun duñ ci yàgg parce que wax dëgg yàlla ñun son yi la ñuy xaar quoi. dëgg la. ils ont le courage de sortir un son boo xam ne raafale nañ seen génération gars yi nga xam ne dañuy woote yéen yi waaw mais loolu loolu day am ci hip hop ah. Hmm. des fois ñu seetaan seetaan benn affaire affaire yi di kii benn instant mu am ñu ñëw ne stop doy na quoi. parce que sincèrement dafa dafa dafa bon. je pense loolu sax unanimité la. waaw gars yëpp sentir nañ ni doy quoi doy na. parce que gars yi dem nañ ba nga xam ne xamatuñ lu xew. soo yi di génn gars yi gars sax comprendre. donc son boobu noonu c' est venu à son heure quoi. Mhm. parce que instant wu gars yaa ngi doon gars yi dañoo nam rab. waaw te Julio tamit bon. Julio damay wax sax des fois intelligence am moo ko sonal moo koy moo koy sax des fois il est trop intelligent. Mhm. non boo koy déglu da ngay xam ne kii il est trop intelligent quoi. dafa am culture dafa am culture et puis dafa dafa malin. Mhm. dafa malin ba léeg-léeg malin bu ëpp da lay sonal. tu calcules trop benn daw de dañuy calculer rek. calcul yi ñoo leen sonal quoi <laughs> xam nga ñuy calculer rek te xamul des fois am na ay affaire yoo xam ne defal rek quoi boo xoolee sax boo xoolee fi mu jaar waaw na fi rap comédie tëdd ci kaw seen gars yi naan mais xul yow mais mais bu bon bu quand tu l'écoutes da ngay xam li mu bëgg quoi. mais da ngay xam ne peut-être que nit ñi ñoo nekkul ci peut-être loolu. des fois voilà ci mood boobu noonu. li may wax intelligence la. c'est pas un hasard ñu tuddee ko rap wolof moo raw. am na ay saay fa yu fi nekkoon benn booy bi créé kii yu rap wolof moo raw. bon xam nañ ni kooku sincèrement loolu da koy neex. Mm-hmm. parce que booy boobu léegi followers yi dañoo bëri. moom sax. mais by the way. Julio ci sound bi nee respect LRG mais bu leen fàtte. waaw waaw parce que saa yi. waaye non xaaral ma ego trip sama temps yaa gën a. mais man mais man li leen yéen li leen li leen riimel li leen riimel man moo metti. non mais dafa naa suñ ko dugal foofu. LRG LRG nee na booy mais booy ak seen couleur quoi sometimes dañuy mën di affaire. LGBT mais gis nga boo xoolee. rap LGBT LRG moo raw. waaw. rap 221 rap nangam maanaam sénégalisé waaw suñu suñu ay plateforme wane ñun dañuy promouvoir rap Galsen voilà bon on du respect à LNG non bien sûr bien sûr donc waaw bu yàqal tam si rasur góor non waaw mais loolu laa doon wax quoi pour yow ñëpp ko doon xaar moom tamit ñëpp instant boobu ñëpp doon xaar ne bon rab bi comme que soxla nañ ko xaaruñu woon ni xul yow mooy ñëw ne gars yi stop donc ñëw na ñeme ko ñeme na ko ko quoi ñëw na génnee benn son wax ak gars parce que Sénégal nag dañoo am benn problème ak game bi mm-hmm. rarement ngay dégg benn artiste bu jël bu jël ki porte ses couilles ñëw taxaw ne damay wax ak gars yi waaw ñun dañoo am problème boobu loolu de waaw ah, dama koy wax koy def rapajo dama koy wax souvent te lu ma ci gën a métti mooy suñu grand yi loolu doo ko gis jamais ci ñoom c'est vrai comme gan ni wala benn grand maanaam suñu grand yi comme comme nga ñëw tey maanaam xam nga ñun gémbe dañoo nekk si benn niveau boo xam ne Sénégal dañoo nekk grand yi ñoom dañoo jàpp ni à partir d'un certain niveau ñoom ils ne doivent plus faire certains sons hmm. ils doivent plus indexer njuumte la ñun lu game bi grand yi sax pour nga woo leen ñu freestyle problème la. waaw pour nga woo leen ñu confrontation ñoom ak beneen artiste ñu toog nii def son freestyle nii non non. soo ànd ñaa non invité man kenn nga tegal ma ay bit donc loolu culture ñun amuñu culture grand yi taxaw ne stop te dañ koy gis feneen. rab bi quand ça déconne. kilo da koy def mais ni muy bind <laughs> commentaire yi moo ko quoi. li muy koy bind ci ay commentaire moo bëri mais des fois ñun on aurait aimé mu teg son. waaw booy doy na quoi. donc bu ñu gisee ay ay ay gars yoo xam ne même génération bi la ko ñële ñoom ñoo koy def souvent loolu loolu c'est à saluer. waaw naara fii lii tamit da ko arrangé. waaw parce que naara fii des fois bu génnee projet ba pare di laaxatu quoi parce que day génn gis première impression yi xam ne baaxul du bëgg nit ñi déggaat ko. waaw naara fii loolu moo ko dal quoi. <laughs> non en fait naara bi misaalu Kiraama bi dafa génnee benn freestyle. Hmm. affaire bi nice ñëpp di ko xaar quoi non freestyle boobu dafa dóob daf ñoo ñuy gis def la ñu naan waaw après nag projet bi génn le problème du sax projet bi de mais fan ngay dele jëlee projet bi sax mooy mooy suñu problème effectivement maanaam projet bi on a kenn gisuñu kenn te naarab yi stream ko streamer mais naarab yi dafa am team quoi ñun xam ne naarab yi ñu nekk ci ginnaaw quand même sont des yoo xam ne foo tudd seen tur ci game bi nit ñi ne waaw ñi ñoo nekk ci mais qu'est-ce qu'il su doon amul talent ñu ne waaw amul mais Naar P am na talent. waaw Naar P am na inspiration. am na talent am na am na culture buy rab da ngay xam ne waa kii il a quelque chose. mais quest léegi nag peut-être def na benn affaire peut-être dina langaamu ci loolu noonu indi ñu leneen. ni ñuy gis ni ah kii de naara naar man xam naa waa personnellement job nañ donc waa ji buy wax da xam ne kii am na dara. am na dara quoi donc ñu ngi koy xaar. waaw man daal. daal bi mais mais dama bëggoon xam benn affaire quoi. pour yow pikul one lyrical ci sound. waaw mais loolu wax naa ko sànq. ah ok ok one lyrical. ñoom ah. yàgg nañ de. K.O. Prip Diip. ok waaw ñi def. ay jazz ñi def game Haykil mii nii Haykil. waaw waa def def music. def music Haykil jël na si waaram. jël na si waaram Haykil amul maanaam amul benn benn rapport boo xam ne Julio daanaka bàyyi na la ko ay moroomam. na gars yi tontu game bi neex. <laughs> réplique. dafa war a neex non de toute façon. comme dem ki la li muy wax réplique réplique. d'ici des semaines man gëm naa ne dina neex quoi. ma sorti yaay ñëw si loolu la ñuy laalee. Ah. mais mais mais mais par rapport ak son boobu man lenn rek laay laay laay déploré. Hmm. gi nga xeex boo koy def doo woo doo woo. mbooloo quoi mbooloo te beneen mooy. son bi son bi desee na naaj quoi ah. wax dëgg yàlla. son bi desee na naaj bu ngeen noonu xam xam xam. bu ngeen bokkee li ngeen di xeex ma ngeen ànd dem mais ñoom. boo mais mais bokkuñu li ñuy xeex bokkuñu li taal bi taal bi taal loo xam ne dina laal lu moromam wax. waaw mais ku nekk da ngaa wax loo xam ne nii. ñeneen keneen ki lu mu wax bokk toog loolu moom daa am cible am yow nga am si cible. Mm-hmm. moro keneen ki am cible am. man su su doon man son clash moom wala son loo xam ne nii. da ngay dem da ngay da ngay da ngay da ngay songee nit wala genre phénomène noonu. ci le fais tout seul quoi comme un grand garçon. kon waa koñ ba li ça n'a pas lieu waa koñ ba waa la bu am. bokkul xam nga xam nga looy wax waa koñ ba kan tooñ ma loolu. loolu clash la ay line yoo xam ne ni da lay pig. loolu dañ koy nangu même son thème sax. Mhm. da ngay ku ci ay line yoo xam ne day pig. loolu d'accord nañ. loolu boo defee son lëmb xam ne ni du de A à Z lépp clash la. soo porté te kuy quoi. waaw pour man loolu man loolu mooy sama sama sama sama sama sama gis-gis quoi. bañ ko def featuring. bañ kaa def featuring wala ngeen def lu leen neex ngeen wax leneen wala ngeen def ego après ngeen. mais esprit son bi esprit son du woon sax bon esprit son mooy doy na quoi seen son yu bon. en fait je crois que kaa def son pour wax booy doy na seen son waaw loolu loolu am na mooy c'est-à-dire son bi du son wu ñëw mm. nañu clash mm. diw ak diw d'ailleurs sax tur yi ba leerul quoi. Hmm. mais dañu ñëw ne ah. mais attends ñii ñi ngi suivre mouvance moo xam ne mu ngi commencé di yàq lu bari te ñëpp d'accord ci waaw léegi nag voilà quoi basta quoi léegi ñi ngi ñun ñëw nañ quoi dañuy loolu la ñu apporté je crois que loolu tamit am na si mais li ma la wax dëgg la hmm. <laughs> yaa aussi doon clash yoo xam ne génn na <laughs> mën nañu citer Akatsuki ñaari Akatsuki ak taal bi taal bi def son xam nga laal gars yi loolu peut-être dëril waa dëril ñi ngi xeex seen biir loolu après dina am solo gars yi kii ci mais am na yeneen sorti vidéo yoo xam ne am na mais ak EP boo xam ne génn na EP Didi Records yooyu yëpp laay booleendoo ci benn kii yeneen sorti vidéo yi tamit parce que dañu xaw a niroo ko EP wu Didi Records bi sorti vidéo Akhlou Brick Paradise bi nga xam ne peut-être commencé nañ ci wax fan yi malakul moo yi booy moytul jël diw del jël diw nangam sangam xam nga hmm. léeg ak ak fi réew mi toll loolu surtout y'a l'autre vidéo de euh, waa Akatsuki Flamme xam nga boobu tamit ñoom ñëw nañu dañuy def tutoriel pour jàngal gars yi jékki-jékki def ko son love hmm. naka ngeen trouver ñetti sorti yooyu noonu quoi ma commencé par le grand Malo waaw te même. xam xam xam nga bu dul dara. cay caaxaan sa cay caaxaan sa dee kenn ko yéene suñu. Pape bu muy dee bigi buñ ko interviewé dafa benn xam muy solo mu ne man bu muy yéene kenn dee parce que du dul par rapport ak hmm. léegi nag nga koy foowee naan ay mots yu jëlee kii moom. waroo jël dafa rafetul quoi franchement. pour ñoo xam ne. est-ce que est-ce sax moo jël décision jël. a grave loolu tamit loolu la question moom exécuteur la quoi <laughs> moom mooy bureau bi. léegi beneen problème mooy jàpp ñoom seen titre bi sax da da ñoom sax da leen tontu quoi. waaw ah, fu réew mi toll. <laughs> kon Maodo jël kon mu leen fi bàyyi. bu mu fi bàyyi bu mu fi bàyyi yooyu quoi. yàlla yéene bu mu doon néeg waay. <laughs> amiin en tout cas en tout cas c'est parce ah. que dafa rafetul xam nga même bu dul dara respect par euh, ñoo xam ne nii ay famille éploré ak lu fa jot a waaw. fii ñun ñu fi toog lu mu bon bon ci année bi rek lu mu bon war nañu xam cinq à dix personnes yoo xam ne xam nañ leen nii. Hmm. même bu ñu dul fréquenté xam nañ ñoo xam ne xam nañ leen. effectivement effectivement dañu respecté loolu ñoom tamit xam nañ loolu quoi. waaw parce que ay dee ay demee la nit boo ko mënul ñaanal quoi mooy loolu quoi. rythme son bi tamit. dafa la jox rythme son néegu góor quoi même chose la quoi pour ñu TikTok ko rek. ay kii la rek ay tàngal ceeb la rek. <laughs> waaw ay tàngal ceeb la. le produit de Didi Record seen EP bi. waaw Didi la forme plaît beaucoup. la forme. des fois damay bëgg di wax affaire yi surtout su may foog <laughs> bon cinq sons la. Mhm. cinq sons yi bon premier first time ma get ko. dama ko dama ko recruté daal quoi parce que dafa gàppoon mais euh, par rapport loolu fi wax fa laay rebondir di nga liberté d'expression artiste surtout artiste dafa am yoo xam ne ni boo ko fiiree mhm. lu dul loo xam ne ne c'est day offensé tout genre loolu leneen la quoi mhm. war war war ko mën a exprimer mhm. lenn daal moo am xam nga def lu neex quoi comme ni ko saa waxee nu tudd ci Zoukar. Euh, hmm. parce que booy xool ñoom seen bëm bi donte booy xool lyricalement zéro. ñun non lyricalement franchement. Hmm. mais dafa ba pare tam dafa tombé ñu nekk benn période boo xam ne ni dañoo dañoo set stress lañ ne nekk. Hmm. mën na ni Covid bi. waaw waaw et cetera il faut moom leen loo xam ne ni day xaw a. kii décrypté décrypté quoi décrypté voilà day xaw a euh, neexal atmosphère rek yi demee noonu. Mm. te te ils sont dafa man moom j'apprécie franchement la forme j'aime bien. leneen moom xaar ma ko ci ñoom quoi donc man loo xam ne ñoom fan lañ fan lañ kiiwee man. loolu noonu loo xaarul ci ñoom. affaire bu dóob. maanaam <laughs> kon doful non bindu xam nga bindu bindu quoi ah ci rap quoi parce que boo xool fëleuse. kon doful quoi fëleuse fëleuse. <laughs> ok mm-hmm. nga jël coulisse coulisse lyriciste la techniquement. mooy loolu ah. y a loolu aussi comment il s'appelle. kan Kamou. Kamou. Kamou zéro. Kamou tàngoor. Kamou <laughs> zéro xam nga léegi léegi par rapport ak loolu noonu ñi ñëw def lii man coolul quoi. la forme y est. mais ça reste souvent ça me plaît quoi man moom. saa aja. si bon non jege ci clash yi ak sama ah. yi yee Ousseur xam nga man vidéo yi génn ah. gis nga affaire Diddy Records bi bon man je suis très su ma sañoon xam nga lan laay wax comme paa bi biñ ko nee. Mhm. lan nga xalaat ci naa nga mu ne bon pas on. pas envie. <laughs> sérieusement <laughs> mais faaw ma faaw ma wax ak ñoom quoi mhm. tu vois. Mhm. man xam nga la laa wax zéro sur vingt laa leen may personnellement franchement ok maanaam ku nekk am nga sa gis-gis ci lu ne quoi mhm. je respecte position Malomaan nee na il aime la forme mhm. nee na bi foo ak doomam nii <laughs> day am ay wax yu mu koy bëgg wax mais loolu pig la moom mi ngi wax ni message bi attaché bi kii daf ko war a sàmm daf ko war a ngem. fu réew mi toll mais banaana. non monsieur banaana <laughs> waaw banaana. banaana bi. je na tubé. non non non wax eh, li ci topp ñun ñëpp xam nañ ko quoi. waaw waaw franchement day wàdd. waaw day waaw tamit. non beneen bi mooy xoolal. message subliminal bi ñëw. dafa génne mais après wax ji dafa leer dafa génne dafa verlan après dafa verlan lu lu nga njort yow dafa verlan après pour wax la message wax boobu noonu sol na yére ok ma ñëw ma <laughs> ñëw léegi xaaral ma xam ngeen ci loolu yëpp léegi xaaral ma ñëw <laughs> xam nga non xam nga <laughs> si l'autre gars nee na moom li eh, xam nga ñun dañuy déglu man man j'ai écouté j'ai écouté tous les sons cinq son la jafewul déglu quoi. non je veux dire déglu naa mais je sais pas de comprendre. il faut il le faut nag. voilà léegi ma ñëw. léegi léegi man maa man maa war a wax. waaw pos waxal. agada mic. bàyyi la ko mu wax. agada mic. ok léegi maanaam. Euh, euh, Didi Record quoi maanaam seen projet bi. il y a Kamu. Kamu mm-hmm. dafa génne woon projet avant loolu. Mm-hmm. mu tuddee ko Kamikaze. Mm-hmm. projet bu nice. déjà Paulus dafa génne woon album. album bu dope ñun ñëpp xam nga on a apprécié quoi te même freestyle yi mu doon def euh, très récemment tamit ay freestyle yu naan sax sama lyriciste mhm. Cool Diss dafa génnee lu dul yàlla nee très bon dal nekk moom tamit lyriciste Jella Benz quoi qu'il en soit ñun ñëpp xam nañ ni un potentiel boo xam ne ñun ñëpp amoon yàq si moom quoi pour mu jël au mhm. parce que à travers maanaam ay projet yu mag lañ ko doon gis. Fladerie ko Fladerie ko invité ay gars yi invité ko kii c'est potentiel la war na si mën a génn. OMG amul lu mu lu mu lu mu amul benn. level boo xamante ñaari at di jël. c'est la meilleure mm. femme bépp femme bi nga xamante ne yaa ngi si hip hop bi ak lépp looy mënti def si hip hop bi OMG c'est la meilleure. loolu nag j'assume quoi. mais loolu nag loolu terewul ni terewul seen seen projet bi. Ah. non sincèrement seen projet bi déjà la forme ne me plaît pas. waaw pour pour tourner un peu euh, <laughs> Maloma. la forme non bu parce que dañuy ñëw nee nañ. Euh, je me rappelle Bieber am benn jamono mu ne. waaw dictateur musical bi dafa doy. dafa doy mu ne ñun personnellement man je me suis senti divisé mu ne ñun ay dictateur musical. waaw mm. mais léegi yow lan ngay kon approbation dictateur li woo li ngay def yaa tey. mais à chaque fois tu may critiquer waaw nga a li may def rab la pourtant naa nga. Mm. man stop li ngay def jàppee wu la. yow nee nga li ngeen am nañ si droit continuer am nañ si droit. mais li ngeen def jàppee wu ma ko rab. franchement c'est ça le truc maanaam yow li ngeen def man jàppee wu ma ko rab et puis surtout tout tasar mu kenn mënul muusa nga waa ba expliquer ma naan man non boo jëlee tempo bi boo rëkkee. tout tasar waaye munoo bàyyi ñuy mathématique rek. wuy ma te dara du xew mathématique dara du xew mukk <laughs> dara du xew yàlla <laughs> clip daax lu birik ak clip bu waa Akatsuki bi bon euh, Akatsuki bi sax bon. nu mu tudd gis nga sànq Akatsuki bi ah jeune bi parce que c' est dans la logique de néegu góor. ak euh, may ma po. waaw et c' est dafa am benn affaire bu ñu tàmmali quoi mooy taaj bit mhm. nee nañ c'est un concert boo xam ne ñoom dañ ko tuddee noonu quoi. Mhm. lu bees la. Mhm. mais ñoo tuddee noonu affaire bi taay jël bi néegu góor bi j'ai bien aimé xam nga mais aussi li ñuy wax seen sound yi seen confrontation directe bi ñu nekk di def ak Dip. waaw loolu. indirect la. no direct la. non parce que non ay la xam nga la parce que xam nga la moo tax koo ci interviewé du assumer ni. man dama am problème dama am kii ak kii cest euh, yooyu guerre froide yooyu. mais boo boo déggee da ngay dégg xam nga seen son may ma po bi xam nga loolu lañ ci wax. benn côté ñu ne. Mhm. boo defee compilation quoi. nee na def compilation. dajale ay nee na ñoo ñoo ñu ne loolu ay sóob la. mais compilation Pepsi bi. moom lañ doon wax ñu ne ñi ci wax ñoom ñoo mën. Euh, ah lu bëri loolu ay sóob la. te compilation bi mooy. sommet ah. bien quoi affaire boobu nañ ko exploiter seen pig yooyu ñuy pigante dañ koy exploité waaw man de wax dëgg yàlla ci xam naa tam Tamsir balaa may ñëw man damay wax ci xam naa ne yow yow doo baal gaay yi. non ma wax du ma wax man ci projet Didi Records bi 5 étoiles franchement 5 étoiles filante la quoi voilà nan naaw quoi am na étoile yi dem lii du étoile quoi taxawul benn place. di wax bu dee hôtel moom wax dëgg yàlla def leen ko 5 étoiles filante chaque seen projet day lan di wax waaw nekkul waaw kay merci banaana jarul jarul sax kii sax jarul jégalu beneen bi aussi mooy pour Akhlou Brick man pour man monotonie bi dafa dafa commencé di di dem ci am Akhlou Brick même seen client ah, benn lieu photo wu fii dégg dafa yomb quoi. non bàyyi nañ tubéy bàyyi nañ tubéy yu weex yi tubéy yu weex yi. waaw tubéy yu nag quoi. bàyyi nañ hôtel yi ak tubéy yu weex yi. bàyyi wuñ dëgg yàlla faut au moins ñu sorti ci kii bi c'est pas parce que da nga am benn public rek. Mm. public boobu moo war a moo lay suivre rek que yow forcément yow doo jéem a def leneen quoi beneen bi mooy tu veux concurrencer dip dundu gis faut vraiment être balèze quoi. Mm. ndax dip. fawantuwul de waaw loolu tamit bon c'est pas pour lui jeter des fleurs. gaa ngi ko dara rey ñu ko dara seetam. <laughs> projet wu bi ñee moom projet bi ñun bon biñ ko annoncé ñun xamoon nañ couleur yi quoi. waaw comme clip bi rek bëri woon na couleur trop. bon xam xamoon nañ xamoon nañ loolu la. non xamoon nañ ko quoi biñ ko annoncé rek ñun xamoon kamu kamu sincèrement. semaine bu dee 7 jours 5 3 jours dañ koy gisee waaw c'est pas du question dañuy toog chaque fois. Ah. Mhm. xam nga dañuy të të du ma ko nëbb dara dañuy waxtaan du ma nëbb bon du ma wonu ma sooy mais dafa ma doon naan. booy projet baa ngi ñëw <laughs> tous tasar dara du xew day dóob yow xamoo da xam nga yooyu la ñuy wax quoi mais ma ko déggee ba léegi nag dama ko yàkkam ci gis gisaguma ba léegi nag parce que déception la quoi waaw bon biñ génnee tous tasar bi comme que kamu nee na ma non tam xoole lii ñëw ma ne ah kon garaawul xam nga luy ñëw dina dóob mais instant yi dama ko yàkkam ci gis sincèrement waxtaan ak moom non pour ñu waxtaan fan nga teg li nga doon xam nga mais voi voi voilà tey bon Dieyla Bank dama jàpp ni moom dafa nekk ci logique gu defanteg public affaire bu garaaw la nag. te c'est dangereux gars yi gars yi jëloon nañ ko ay jamono gars yi jëloon nañ ko boo xoolee un jour Tunkara waxoon na ko dip ay jamono. Mhm. ne se c'est un jeu dangereux. da ngay def dara rek gars ne la franc-maçon rek nga tegle ay clip di wone di di di forcer di wone ay affaire pour nit ñi ne wéy kii franc-maçon la quoi mhm. mu ne ko d'accord c'est un jeu mun na baax mais. à la limite après c'est dangereux quoi. waaw Dieyna boo xoolee instant bi dafa nekk ci loolu defante public. ñi ngay defanteel du ñu carrière. ñu ngi lay wax affaire góor jigéen gars yi ne nga góor jigéen <laughs> léegi sax du clip sax ah, day toog sax di filmer boppam di def ay affaires yoo xam day manière yoo xam ne dafa rafetul sax. mais da ngay xam ne kii dafa nekk ci defante di ñaawale di def affaire yoo xam ne amoo problème ak ñun même. en plus plateau amul bandi waaw ah, <laughs> waaw <laughs> Prado amul bànn. mbaa yi ngay wax nag saa yi ñun Lamsar jàmmagal lañ dëgg. waaw gis xam nga donc. bon man yooyu yooyu noonu man man souhaité ko jël bank par exemple. carrière la bëgg def quoi. si koo xam ne dafa ne peut-être am na plan de carrière yooyu noonu on on souhaite pas ça quoi. ko te saa yi li mu wax rek démb maa ngi koy bind maa ngi ne. nee nañ suñu critiques yi ñoom faalewuñu ko binnaaw naa ko Facebook ñoom faalewuñu suñuy critique mais ils passent tout leur temps à se justifier son yi da koy déglu ay siisu ay maa tey maanaam dañu justifié wu quoi li may def maa tey li may def donc kan la ñuy woo ñoo rappeurs yi en général tamit yaa tey quoi mais ñun tamit amul problème suñu nopp ñoom waaw waaw waaw gars yi dañuy fay seen pas seen xaalis affaire te dañuy wax quoi waaw en tout cas loolu loolu loolu mooy appréciation bi xewati sax clip bu lan clip bu Akhlou Brick bi la non Akhlou Brick sincèrement. Akhlou Brick munoo wax munoo munoo bañ ne dañoo mën rap. waaw. non Akhlou Brick gâchis la gâchis la quoi. vraiment Akhlou Brick ay artistes yu ñu war a tudd la. mais na ñëpp xam ne li ngeen di wax ni d'accord ma si. waaw waaw amul problème <laughs> amul problème non. muy cool non je dis pas que c'est non attends je dis pas. non amul droit bañ see d'accord. mais sérieusement voilà il faut. waxuma waxuma ni nii doppul quoi. man man kese maa ngi défendre man dama jàpp ni Akhlou Brick. <laughs> c'est que moom lu muy défendre loolu lay bañ fële. waaw musicalement li ngay bañ a Akhlou Brick yaa ko si li ngay nangu la. non man dama dama jàpp ni dama jàpp ni. waaw bàyyi ko mu pare xam nga démb dañoo toog studio ma tegaat ak ay gars ma tegaat aale aale. waaw barki yàlla man dama jàpp ni sax ñii di wax ci aale aale comprendre ñu son boobu métaphore bi am ci son. non beneen affaire barki yàlla Akhlou Brick lyricalement. seen songo boo koy déglu nii mun nga fecc nii de mais barki yàlla booy buy déglu lyrics yi nga koy décortiquer da ngay xam ne ñii ndeke son bi nekkul sax si porté gars yu Tamsir c'est extraordinaire pour ah. daf leen a uh-huh. pour ñu décortiquer aale aale mm-hmm. boobu mm-hmm. boobu ñi ngi ñi ngi door commencé mm-hmm. jour boobu lañ décortiquer aale aale musuma dégg son bi c'est à la fois mystique waaw son bi dafa bi moo moo dafa extraordinaire c'est extraordinaire xam nga Sénégal do it affaire yooyu. waaw am na ay son yu bëri yoo xam ne. man dama jàpp ne ah lu Brick mun nañ def lu ko raw mais dañoo toll ci jamono son tiktokable <laughs> booy kaa la ñu def des son tiktokable kaa la ci loolu lañ nekk quoi waaw nekk fii di def ay son tiktokable ba pare bëgg a tamit di dundu gis tamit xam nga ah. loolu mënul nekk ko quoi mënul nekk mënul nekk nañ nañ nañ nañ def ay affaires yu sérieux léegi tontu loolu ñu amaat lan lay tontu ma ne xam nga gars yi ñu mën a li ngay li ngay. ils ne sont pas à la même carrure ci la actuellement mën nañu rap a rap mën nañu concurrencer Dip bu ah, fekkee il arrive à sortir ci. man la la la la la mais instant fait pas ah, la c'est ça il fait pas l'actualité nañu ngi si <laughs> ñu ngi si Akhlou Brick. mais il fait pas l'actualité yow sànq yow. waaw ma ne yaa fi génnee benn son boo xam ne di décortiquer ay lyrics artistes yoo xam ni ay gaa yoo xam ne laal nañ dip. waaw sommet bi quoi yow yaa. il fait pas l'actualité selon toi mais selon Akhlou Brick. waaw ñoom dip artiste la bu ñu bëgg a. waaw. waaw super léegi léegi ñu wax boobu xam nga sànq yéen ngi naan li may bañal waa Didi laay nangul waa Akhlou mhm. c'est pas la même chose yaa ma waaw ma loog moo ma ko wax mhm. munoo munoo ma tëkkaleel sound tous tasar bi nga ma koy tëkkaleel ak fi réew mu toll wala nga koy tëkkaleeg néegu góor c' est pas pareil kii kii déjà c' est c' est un c' maker xam nga je sais bien que ni déglu mm-hmm. na sànq néegu góor bi déglu na ko quoi c' est c' Teacher moo ko moo ko pro Wiz xam naa te Wizkid Wizkid maanaam si wàllum sampling boobu noonu maanaam utiliser sabar bi di ko di ko di ko def si hip hop bi c' est l' un des meilleurs ci wàllu woowu noonu. il suffit juste nga nga déglu nga xam lii bitu bitu hip hop la. mais Touz Tassar ma déglu Touz Tassar nga ne ma lii bitu hip hop la mënu ma ko nangu. non attends léegi nag non nekkuñ ci confrontation boobu. non man man uyu ma uyu ma uyu ma. xaaral j'ai pas parlé du son. peut être ce sera peut être mhm. un éternel débat. Mhm. mais sincèrement qualité bi nekk ci sound Akhlou Brick. Mhm. gisuma ko. ci ci ci sound waa dina. nag by the way. Hmm. Euh, concurrence bi hmm. Dip am na ay yu bëri. Hmm. muy Akhlou Brick muy Elzo génnee na R RBG muy Omzo daal euh, dans une moindre mesure puisque moom it gëj na gëj tàngal. bëri nañu de. c'est concurrent ay wan lañu ko lay di mooy concurrence gars yi wala ñoo koy concurrence. c'est ça concurrence mu ngi fi moom day concurrence gars yi gars yi dañ koy concurrence parce que moom day génne sound di laal gars yi di génne sound di ko laal. il faut pas que ñu teg yóbbu ko foo xamante moom il est là balèze. wax nga kenn xam nga

attends quand je dis je vois. pas de maanaam ci lu ñuy gis ci lu ñuy gis nii non je dis non da ngay jël exemple boo xamante ni. Ah. amul amul li ça va ça n'a pas lieu d'être. xam nga non il a parlé bi lyrics bi laa wax lyrics bi laa phase bi laa wax. mais bu ci sax phase dama benn son bu ñu la ligue ñoom ñett lañu. non je parle pas de la ligue c'était avant la ligue. son boobu waaw non bi c'est ñoom ñett lañu. c'est c'est Kerry James ma ne dip xoolul gars yi. non dama la ne dama la ne déglu ma déglu ma déglu ma il y a rapport il y a rapport. non dama ne man phase boobu noonu maanaam dip su doon maay dip voilà phase boobu laay wax mais je te dis pas instant boobu ñoo nekk. waaw xam nga je te dis pas non jeexul ñu ngi ñëw <laughs> je te dis pas que. dip instant bi nii dafa dafa dafa gisul gars yi sax mais gars yi ñoo nekk ci logique instant bi. nañu laal waaj waaw nañ nañ ko laal nañ ko laal Karbala. Karola buy woy son pour buy woy son di bëgg yaayam sax il faut mu sànni pig dip maanaam foofu lañ toll quoi. buy buy buy buy buy non dafa dafa dem ba dafa nekk ci moom dafa dem ba dafa nekk ci moom buy classe nguur gi sax dina pig dip est si que yaa ñoom ñoo nekk ci loolu moo tax ma wax la loolu ko am je dis pas que dip dafa man quand boo ma si bu may cité ay rappeur ni ku dàq rap fii Sénégal quand même si booy yi ni du ma ko teg ci kaw sincèrement loolu c' est moi quoi c' moi. waaw c' moi quoi c' a concurrence. voilà voilà y' a toujours concurrence. non concurrence mënul ñàkk parce que en fait foofu lay. te boo foofu foofu la ñuy jaaree ñu tëj euh, porte boobu xam naa dinañ ko ubbi waat parce que clash moom déjà moom. c' est quelque chose boo xam ne wax ci booy bees yi di génne. waaw ay am na am na booy bu génne. taal bi taal bi waaw voilà am na Moïse booy Colobane. waaw waaw xam nga Moïse. waaw waaw waaw booy def na benn son bac bu muy wax affaire bac bi nii affaire yooyu noonu am na ko mais di indi ak rab bi comment il se il se xam nga rek son des gars yoo waaw waaw waaw waaw ki day defaraale publicité melo musique après nga jaar après nga jaar si yu service dafa nice sample boobu dafa nice dafa nice may leen ma sama may leen ma sama émission comme moo ko def suma juumul foofu la ñuy jaaree eh, eh. ñu tëjee émission bi ci clash yooyu noonu clash moom tout daanaka presque chaque émission mën nañ ci wax parce que à chaque fois rek dina am kenn ku xoos moroom keneen xoosaan moroom loolu mënu see ñàkk l'essentiel mooy ku ci nekk rek loo génnee rek voilà que tu assumes ce que nga ñu nga bàyyi public bi aussi ñoom ñu assumer li def après mu avancer ndànk-ndànk ci li ñu bëgg c'était votre émission For the Culture tey ñu doon waxtaanee ci yenn actualité sorties yi nga xam ne moo am semaine bi mm-hmm. quels sont vos top et vos flops yi ñu fi jot Ah, xakkil xaaral xaaral pos waaw. non du ma ne semaine damay benn top ak wax mois d' août bi quoi. mois d' bi waaw. damay jël ñaari top. waaw damay jël visa bi. avec son projet Karika. waaw son préalable dinañ ci wax ab beneen émission damay jël tamit Haykil. Haykil waaw. ñu ñaari top la ñooñu. flop euh, beneen top bi si mois d' août ba léegi trois laay jël. bagas bagas. avec waay waay il a il léegi flop bi. benn freestyle. xam nga ñoom cinq lañ. <laughs> donc c' est cinq étoiles de flop quoi. Didi Record. Eh, plus bi bët muy six merci. Tafsir. top butiku laay. butiku laay. yeah sampling. nice bon il a l'habitude de parodie de faire des ba nga xam ne. mais son bi mu génnee quand lu ñuy souhaiter la ci rappeur quoi. mooy bëgguma am doom bi. sincèrement dafa dafa nice. lyricalement non. Mm, produit yi génn laa wax <laughs> lyricalement xam nga ak kii bi dafa dafa nice. dafa nice quoi. bon am na ay top ah, am na ay bon Hakill album moom man j'ai j'ai aimé uh-huh. bon ku déggul sa tur da flop <laughs> da flop <laughs> manoo maar projet wala <laughs> lu la neex wooree ma yow waaw waaw ah, man sama top Hakill la Hakill ah. waaw sama flop bon ñaar lay doon flamme ak. flam bu Akatsuki SN sama mbokk taale bi ak lu. ndax ah, lu bëri. waaw flam loolu la moo tax ma def ko flop sax parce que attente ak annonce bi ñu def. éditorial dañuy dañuy soo créé bruit. nga yaakaar dañ ñëw déglu xaar ah, gars ñëw mooy loolu. <laughs> mooy loolu man sama topp xeeki la boo topp yi aussi mën naa ci sutaale ku mel ni taal bi même bu fekkee son bi bi mu génnee bon classe bi neexuma noonu bu baax mais quand même j'ai apprécié ah, le fait mu am <laughs> audace xam nga jonjante ak ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal génération parce que c'est pas parce que dañ la wax ni new generation nga bokk rek da ngay toog di seetaan et ñoom âge bi ñu toll ñu ngi récupérer loo xam ne seeni mag récupérer wuñ ko te ñu ngi ñu ngi dundal loolu donc loolu man j'ai bien apprécié ci top yi laa koy boole flop yi nag moom euh, sérieusement par la yàpp waaw dé waaw waaw si déedéet boo ko sa top <laughs> la wax Julien Lom la sa top la yow donc flop yi keneen ku déggul boppam rek xamal ni flop la surtout ñi nga xam ne dañuy def vidéo di def ay publication te nanguwuñu génnee soo di gaaruwaale je parle de Rifou et de Nitdoff génnee leen son am vous avez les les vous avez le talent rek requis pour mën a tontu ñi nga xam ne ñoom ngeen bëgg a waxal jarul def vidéo def dara c'est du hip hop. game def vidéo naan waaw. xam nga gars yi ancien kon ne fii di def ay refrain yu ñàkk fayda yi refrain bu ñàkk fayda vidéo bu ñàkk fayda ko gën a bon donc faites vos sons et après mu génn. <laughs> la direction voilà voilà signer la direction. aywa kon beneen yoon ci votre émission Faux de Culture c'était un plaisir de avec gars yi nga xam ne ñoo nekk tàng bu bëgg a dee bëri xam-xam jaa ngeen jëf